wabtalaahum bi taqallubil ahwaal wa raddahum bayna al yusri wal usri wal ghina wal fakhri wa tabziri wa taqtiri liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala wasalaatu wasalaamu ala mabuusi alhidayati wa rahma nasiri alhaqi wa nasiqi zulma munqizi albashariyati min barafini alwayli walghumma allazi balaga risalata wa adda alamanata wa nasaha alumma وتركها على محجة البيضاء ليلها كالنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك wa ala alihi wa ashaabihi gurri almuhajjalin wa shummi almubajjalin mushaahidiyi al awfiya min talfatadikum almufaddala télévision Futurs Médias nuhayyikum bi tahiyatil islamiyya wa naqulu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi toog jàkkaarloog seen télévision Futurs Médias nuyu leen ziar leen ndokkee leen bu baax a baax a baax nuyu mboolem xalif généraux yi na ci biir réew mi ñaanal leen ñu yàgg fi lool kilifa diina ji ñaanal leen ñu yàgg fi lool te wér nuyu bu baax a baax a baax a baax euh, njiitu réew mi nuyu euh, kilifa kër gi euh, ñaanal leen ñoom itam yal na yàlla yokk leen dëgëral ci darajey sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk mi noonu gërëm bu baax a baax Sidi Alhaj Jili mi fi bàyyi ko léegi Oustaz Ndiaga Sida Fat Bintu Oustaz Assane mi fi bàyyi leen yal na yàlla yokk leen dëgëral ci darajey sayyidina Muhammad sallallahu sallallahu alayhi wa sallam mbokk mi noonu ñaan yàlla mayaat nu fekkee aljuma ji di ñëw kenn bañ a manqué am lool ñaan saa yu ñu xëyee rek suñu cofeel ci Seydina Muhammad yal na ko yàlla gën a dolli waxoon naa la ni la nit mënul dox te doxunu doxin rasulullahi waaye itam nit mënul jag te jëlul ay jikkoy Seydina Muhammad jamono Euh, munul régler te doxunu doxinu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni moo gën a comprendre àddina ñëpp moom Seydina Mohamed nga xam ni la euh, euh, borom xam-xam yi wax xool ba mu yàgg ne moom daal ay la yëwin la mu waxoon ba tey jamono ji moom la ñoo dundee ak moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom daal kenn xamul lu mu doon rek ndax gisuñu professeur bu ko jàngal kenn gisuñu it sëriñu daara bu ko jàngal waaye li mu waxoon moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam boobu ba tey junni at ak ñeent téeméer rek topp ñuy dundee ci loolu moom sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom daal demoon nañu ba mu yàgg ni kii waxam ji waxi waxi lu mu doon waaye moom itam am jeneen wax ju ñëw jommal ko mooy alquranul karim nga xam ni moom sayyidina sayyidina muhammad sallallahu wa sallam ñi am dégg moo leen gën a dégg ñi am xel yonent bi moo leen ëpp xel sallallahu alayhi wa am xam-xam moo ëpp xam jàngul ba noppi jàngal aalam bi jàngal bi yëpp moo tax euh, sama sëriñ sëriñ Maodo waxoon ni sal an rasulillahi ummata ya arabin mu ne ma mu yàgg ma ni faajab li ummiyin yuallimu alama yéemu naa ci ummi bi nga xam ni jàngul ba noppi jàngal univers bi waaw ummiyu mooy ki nga xam ni jàngul dara waaw ko jug ndey moom yonent bi alayhi salatu wasalaam ba noppi jàngal addina bi yëpp sayyidina Muhammad war sëriñ Maodo ni sall an rasulillahi ummata yaarubin laajal giir yaarub ibnu qaatan al yamaniyun an rasulillahi kan sayyidina Muhammad ndax ñoom ñooy arabul ariba moom mu bokk ci arabul mustaariba mais gën leen a dégg arab mais ñi amoon fëhmu am dégg waaw nga xam ni ñoom seen dégg jéggi na dayoo am nañu xam-xam ba noppi dañu am dégg ki leen gën a dégg mooy rasulullahi waaw ñi amoon xam-xam yaakaar ni adduna bi ñoo fi raw mu ñëw jàngal leen moom Seydina Muhammad te jàngul munul bind boo ko bindalee turam munu ko liir munul bind munul liir waaw waaye nga xool Seydina Muhammad ni yàlla doxalee ak moom ca ngay jàngee ni yàlla bu ko defoon muy jàngkat yàlla def ko muy borom xam-xam yàlla daan ko defal mu nekk waykat alquran bu ñëwee daañu wax ni lii waxi boppam la donte wax nañu ko. mais ñi jàq ñi dàq jàng ci àddina jël nañ alquranul karim def ay séminaire ay ay weer ay at xool xool xool xool xool yëg ni lii du waxi nit waxi yàlla la waaye yonent bi alayhi salatu wasalaam sayyidina Muhammad moom mi nga xam ni ñi am dégg mu leen gën a dégg ñi jàng moo leen dàq jàng moom yonent bi alayhi salaam te jàngul ba noppi jàngal aalam bi univers bi yëpp moo leen jàngal alquran ñëw xamloo ko moo mu ni kii wax wax ji ku mu doon alquran ñëw xamuloo ko musi gina Muhammad ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ki wax wax ji kan la mooy borom bi subhanahu wa taala kon insaan al kaamil waxoon naa la ko mooy dégg nit ku mat nit ku mat sëkk mooy Seydina Muhammad mbokk yi nañu bàyyi wat xel teraanga bi nu yàlla defal teraanga bi nu yàlla defal mooy bi mu yàlla defee mu ñu nit yàlla boole ñu ñu bokk ci xeetu rasulullah gi te neexoon na yàlla mu boole ñu ci xeetu njëkk wa neexoon na yàlla mu def ñu xeetu Adama mbaabu yuñ ci yàlla Suleymaan mbaabu yuñ ci yàlla Isa barki démb waaye yàlla denc ñu ba rasulullah yi ñëw yàlla boole ñu ñu bokk ci xeetu Sayyidina Muhammad xeet yi nag xeet bu ne jàll na waaye nga xool rasulullah gi bi mu nekkee ngën ji yuront la ñu nekkee ngën ji xeet bi akrami rusli kunna akramal umami bi mu nekkee ngën ji yonantu moom rasulullah yi ñun ci la nekkee ngën ji xeet ñun xeetu rasulullah yi te yàlla defal ñu loo xam ni ëllëg yeneen xeet yi ñun xeetu Seydina Muhammad ñoo leen di atte kon mbokk yi nañu wëlbati ko waat nañu wàññeeku waat yëg teraanga bi nu yàlla defal am na bis boo xam ni loo defoon di ku ko réccu buñ la yoree ci biir bàmmeel loo defoon di nga ko rëccu bu dee lu baax la di ko rëccu ndax di nga rëccu gi mooy dinga ni man de su ma yëgoon gën a def lu baax bu fekkee lu bon nga daan def bu ñu la yooree biir bàmmeel di nga ko rëccu ndax di nga ni su ma yëgoon duma jaar ci mbon mbedd mu mbon jaar du ma fa jaar tam na ñoo xam ni ñoom dañoo xaw ma dañu sib mbaax ñoom daal ñoom daal dañoo sib mbaax xaw ma mbaax leen wala wala ñoom sax ñoo sib mbaax parce mbaax nga ni talal loxoom yiwa nga ne di tàllal loxoom seytaane taxawee nii di tàllal loxoom nga dëkk mën ko rek yow doo wax lu baax doo jëf lu baax yaa ngi ci mbon nit nag war naa góor góorlu ci dundam ba gox ba nga dëkk bu ñuy lim ñu baax ñi boole la ca ba gox ba nga dëkk bu ñuy lim ñu war a jiite gox ba boole la ca waaye boo setul tilim kenn du la jiite ci dara kenn du la yéene ci dara mbokk yi nañuy góor góorlu di dundee lu lew xaalis bi ñuy lekk suñuy doom di ko lekk na lew nanu góorgóorlu ba kër gi ñuy dëkkee na lew nit dafay doylu parce que boo doyloo da ngay féex waaw Seydina Muhammad nee na alqanaatu kanzun la yafnaa nee na doylu magasin la boo xam ne du jeex mukk borom borom ixtasil moo ko waxoon waxuma sidna Aliyu mu ne alqanaatu raxatun nee na doylu noflaay la nit bu doyloo rek nekk am noflaay waaye yuutu loo xam ne àgguloo fa bëgg am loo xam ne yàlla cëraleewu la loolo lu ne nga ciy dugg doo nelaw nelaw yu doy yaa ngay wër ci àddina bi yaa ngay wër réew ak réew yaa ngi ne ci biir réew mi xalaat bu ne xalaatu pexe bu ne boo waree amee alal ju leewul yaa ngi koy def te imam Shafii dafa waxoon ni yow miy sàkku wërsëg yaa taliba rizqa fi dunya bi quwatihi taduuru min baladin fiha ila albalad mu ni wax sir annaaka aw wax sir inaanaka ndax li anna rizqa munqasimun yëti ilayka walaw fii jëbhati asadi nee na yow mii wëndeelu lu ne yaa ngi koy def ku ne yaa ngi fay jaar lu ne yaa ngi koy def di wëndeelu pour jot sa wërsëg nee na dafa ndànk ndax li anna rizqa mun xasimun nee na wërsëg dañ koo séddale yëti ilayka dana ñëw ci yow sa wërsëg walaw fii jëpp hëti asadi donte mi ngi ci jëwu gaynde sa wërsëg bu nekk ci jëwu gaynde di nga dem jël ko nit ku ne fi nga war a àgg kenn mënul tax nga àgg fa nit ku ne li nga war a am kenn mënul fexe ba doo ko am heure bi nga war a dee bu mu yàgg ba yàq ba sa xel yaakaar ni korom yàlla ne mulkul muuti ñaar ngay def ma dégradé la nga rey ko ërëm jotul ak nga rey ko ërëm passé bul ko yéexi te bul ko gaawee mbokk yi bés yi nañu bàyyi bés yi mu def li ko soob ñun ñu jël suñu bopp bàyyi ak borom bi subhanahu wa taala mais sabab lu imam Shafii dafa wax ni dail ayaama tafalu ma tacha wa tib nafsan ida xakama alqadaau waaw bàyyil bés bi def li ko soob moom bés bi tey la aljuma kan moo mën a wat ni aljuma ji li ñëw dina ko fekk allahu akbar ñun nit man ñun de man nit simple ñun nit simple yi xamuñu ko mais nag kaay ma wax la nag attention yàlla am na ñu ko xamal yàlla ci biir gaayam yi am na ñoo xam ne heure bu leen neexee dee waxoon naa ko yàlla ci biir gaayam yi am na ñoo xam ne xam nañ heure bi nu war a dee xam na ñaata fan la ñu war a dund ñaata at xam nañ ko ci gaayam yi nag laa wax gaayam yooyu nag mooy ñi nga xam ne ragaluñu dee bëgguñu aljana ragaluñu safara te fa ñu jëm ragaluñu fa fii ñu bàyyi jàq ñu fi ñoom la yàlla waxoon ni ala inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuuna yàlla ni sidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxal gaa ñi ménguk man ala waawee inna awliya allahi naka sama wëllu yu mooy gaa yi ménguk man ñoom day la xawfun alayhim fa ñu jëm ragaluñu fa waaye walaa hum wax yaxzanuuna fii ñu bàyyi jàq ñu fi am na kër goo xam ne ku ko bëgg a yàq yaa ca yàqoo am na njaboot goo xam ne ku leen bëgg a yàq yow yaa yàqu ndax seen way jur fi mu bàyyi jàqu fi ndax defar na ko ba noppi wulaykal xaw mu gaa yaa ngoog mooy gaa yi mos ca ndoxam ma moom borom bi ña yàlla waxoon ni wa saqeehum rabbuhum sharaban tahuran sama gaa yooya maa leen nandal maa leen mosal ca ndox ma waaw ndox ma ndox yii ñuy naan nag mooy ndoxu bëgg yàlla ndoxu bëgg yàlla ga boo ca xasee mus di nga dem ba yàlla bu la mosee la ca ndox ma di nga dem ba da ngay sax naaw te doo yëg ni yaa ngi naaw mën nga tëdd sa borom kër mbaa nga tëdd sa soxna defe ni yaa ngi nelaw fekk yow yaa ngay fanaan xadarat ilaahi fekk yëgul yaa ngay dem di fekk ci réunion ba xam nga lu lay may loolu mooy di dundee lu lew ku dul dundee lu lewul loo jaamu yàlla yàlla du ko nangu nekk ci dëkk bi di tiriyaan ah? jël alalu jàmbur lekk alalu jirim nit dee nu war koo miraas am ku téye be koo xam ne boo signé signature ba rek nit alal ji génn nga lànk ba doo ko signé ndax soxar ba dee ah, am na ñoo xam ne bi te kat wax nañu ne nit pour mu tàlli dëgg il faut que ñu miraas ko yow kii góor góorgóorlu ba liggéey alalam bàyyi la yir njaboot gi ah ab signature moo war a tax alal ji génn yow nga war a dem rek signé waaye am na koo soxoree pour mu bañ a tekki am na koo iñaanee pour mu bañ a am ci alal ja nga ne fi bañ a signé di a dal wala nga yor alalu jàmbur war a dimbali ay njabootam nga téye alal ja ba dee allahu akbar waa yow boo deebee ñu rof la biir bàmmeel wala kay dee am lu mun a dénk ci alalam ja nela sama alal ji ndénkaane la dénk naa la ko donte yéen ñaar dong yéen a yëg mu dee nga xam ne yow alal ji njabootama ko moom nga lekk ko te yàlla nee na rasulullahi wax leen ni ku nekk ci sukuraat dénkaane mu dee ñu changé dénkaane ya yàlla nee na su duma di am duma duma ka dee ci changé dénkaane yi kooku lay duma fa man baddalahu baada ma samiahu fa innama ithmuhu ala alladina yubaddiluuna inna allaha samiun alim attention yàlla ne Seydina Muhammad waxal ni ku nekk ci sukuraat dénkaane mu dee ñu changé dénkaane ya yàlla nee na su duma di am duma duma ka dee ki changé dénkaane ya kooku lay duma attention ina laax naka yàlla kat samiun aji dégg la këru dénkaane waaye alimun aji xam la moom yàlla ka changé dénkaane ya ñi dee nañu leen miraas gaaw alalu jàmbur yi ngeen téye ci banque bi denc ko kaddee dénk leen ngeen koy lekk yéen seeni doom bàyyi ay doomam baleen ko bis bu ñu leen roofee biir bàmmeel loolu defoon di ko rëccu bis bu ñu la dugalee biir bàmmeel alalu jàmbur ji ngay jël lekk ko alalu jirim yi ngeen lekk denc alal ja ca bànk ba ngir soxaree kenn koo xam ni wóor na la bu ñu miraasee mu am ci as tuut mu départ ay doomam départ nga lànk ngir soxar waaye ku soxar moom doo nekk sang mukk alxasadu laa yasuudu rasulaay nee na ku iñaan doo nekk sang mukk sëriñ Mbay Mansuur nee na iñaan moom daa gore ñu ne ah, si mu ne ah iñaan yow ki ngi iñaane dafay gën a yokku yow mii iñaan nag iñaan gi ne ci yow iñaan gee lay lekk rek moo tax iñaan moom iñaan gi yow balaa dem ci ka nga iñaane yow lay njëkk lekk ba nga jeex nga dem hôpital ñu naan la gisuma dara nga def bilan gisuñu benn feebar nga naan dañ maa liggéey ak dem hôpital ñu pikiir la hospitalisé la soxol bi dagg nga amee feebar ah euh, yi gisuñu dara nga ni sëriñ si sëriñ si sanga sang gisuñu dara fekk yow xam nga loola ah, xam nga ban problème nga ama ah, problème mu xol da nga soxor soxor lii li la dal lépp soxor moo la ko teg mbokk yi la ñu wëlbatikuwaat dee da tuub koy gaawe nit mën naa nekk ci lu di def lu bon ba fii may wax ak yow am na ko ne ci lu bon fekkee yaa ngi muy ba ko ba ko tuubal booy tuub yàlla di la baal yërmande yàlla ëpp na mindee fii yërmande yàlla ëpp na mindee fii wa rahmatullahi kullal xalqi xad wasiat min fajirin wa mutiin zahidil baari sa maam Seex Seydil Xaaji Malik dina wa rahmatullahi yërmande yàlla ñu ni ko ansi ah, mu ni xad wasiat li muy firi ci luxatul arabia mooy xat ci dëgg-dëgg xat xatu taqiq la yërmande yàlla yaatu na waaye sama mag ñi niñ ko firee mooy yërmande yàlla xad wasiat ëpp na mindee fi kullal xalq yërmande yàlla ëpp na mindee fi min faajirin laa la moom la sax kooku yërmande yàlla yaatu na ci moom wa mutiin aji topp yàlla zahidin ku dëddu àdduna baari ku baax ñoo ñëpp yërmande yàlla ëpp na ci ñoom kon da ngay tuub gaaw yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha xaqa illa wa antum muslimuuna yàlla ne sayyidina Muhammad waxal gaa ñi jënd carte liimaan wax ni ñoom ay julit lañu ma mënu mu ni ko naam mu ko waxal ak ñoom de na wax ak ñoom waaw nañu ragal yàlla dëgg dëgg ragal yàlla ikk waay ak lu mën a xew lu mu fu nu jaar lu ñu mën a def mooy tun na bu leen dee mukk illa wa antum muslimuna fexe leen bala ngeen a dee ngeen nekk jullit wala tamutunna illa wa antum muslimuna bala maa tuub nekk mag ku la wax ni mag fi la lay fekk yow ndax dafa am ku ñëw déey la wax la at yi nga war a dund kan moo la wax ni la yow di nga am 60 ans mbaa dinga am santa damay fo ba ca kanam damay xaar ba nekk paa damay xaar ba nekk maire dooru tuub ku loo wax ni di nga nekk est-ce que maa gis koo xam ni ci biir yaayam la de maa ko gis ko génn liir bi liir bi dee man maa gis maa gis koo xam ni daa judd rek dee te yow danga war a gaaw a tuub nga lànk yàlla ni wala tamuttunna bu leen dee mukk illa wa antum muslimuna fexe leen bala ngeen a de ngeen nekk jullit tuub na nu koy gaawee waaye xaar ba bëgg a nekk ci lalu sukuraat naan yàlla baal ma waaye yàlla tuub naa yàlla du la wuyu waaw yàlla du la muslimuna tuub na nu koy gaawee tuubal bala dee gaaw muy tuub yàlla di la jéggal waaw xasanu bisri bi am na xal wal istighfaaru bil lisaani sarti tuub nag mooy nga rëccu ci sa xol nga rëccu ci sa xol jéggalu yàlla ci sa làmmiñ waaw da ci sa xol waaye doo ci yem dangay ngay jéggalu yàlla ci sa làmmiñ waaw sa xol di bari loo def ay istighfaar di julli ci Seydina Muhammad waaye laabal sa xol rafetal sa xol mbokk yi tey wax dëgg يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم yàlla ne ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما yàlla ne Seydina Muhammad waxal ak ñoom wax leen ni ñoom gaa ñi jënd carte limaan wax ni ay jullit lañu nañuy wax dëgg am na ñoo xam ni ñeme nañu yàlla sax dóor seen loxo ci kaamil yàlla am na ñoo xam ni façon waat gune ñeme nañoo toog di ko waat te la ñuy wax xam nañu ñoom dara du ci dëgg mais kooku moo xeeb boppam mais wax kuy wax lu dul dëgg da yow sa sa jëmm ji dañ ko sax war a daggate parce que yow sa jëmm ji amalatoo ko benn njëriñ valoriser woo ko nit dafay valoriser jëmmam parce que nit bu xamee boppam rek xam yàlla man arafa nafsahu arafa rabbahu celui qui se connaît connaît son seigneur waaw nit boo xamee sa bopp xam yàlla yàlla ni yéen gaa ñi gëm yàlla na ngeen ragal yàlla tey wax dëgg nee wax dëgg wa quulu xawlan shadidan dee leen wax wax yu dëgg bu ko defee yuslih lakum dana leen yéwénal moom yàlla amalukum seen i jëf wa yaxfir lakum mu jéggal leen man yàlla zunubukum seen i bàkkaar loolu lii rek la ñu bëggoon ci tuub gi bëgg nañu yàlla baal ñu Mamadou mu ni ko naam mun ko wax ak ñoom xam nga lu xewa ah? mooy wa maytu illaa ku topp yàlla suula rasulahu ak ndawam lii tamay rasulullahi kooku day faxat faasa a na fawzan aziman gañaay lu mag bu ko defee boo duggee biir bàmmeel nag ñu lay suul nag ñee di jooy fekk yow fa nga tëdd yaa ngay bég waaye nga ni Seydina Muhammad lay teeru ñu deen yaa ngi suuf di romb armeel yi naan armeel daa tàng am na ñoo xam ne biir armeel la leen gënal àdduna bii yonent bi alayhi salaam toog na di waxtaan ak saxaaba yi benn waay ñëw ne ko bala ma laa gëm sama doom ji moo dekki ma gëm la waxoon naa la ko barki démb dama ne ko ah saxaaba yi jaaxle yéefari tàcc ne tey la de dama ne ko anamul mu ne ko ma nga armeel ya dama ak jëkk waxtaar wa buy dox nag ba nga xool ginnaaw ga dootoo xool kenn boo ne ko ma ne ma jox la noppam soo bàyyi du siggi sooy liggéey dajeeg moom ni nga tardé Seydina Muhammad boo ne ko jàpp loxo sëgg si gi xool ko sëggaat si gi xool ko njol màkk jox la beneen couleur moo gën a baax ñëpp daawul énervé wu gën a yiw ñëpp gën a tabe ñëpp gën a sell ñëpp gor ñi moo leen gën di gor rasulullah na bi daagu gaa yi ful bi topp ci ginnaawam nan jool maakaa ngay euh, sulle ji néew ba de ab néew la ni lay sulle ji na bi dugg ci armeel yi ne waa ji ana bàmmeel xabru bi mun ko bàmmeel baa ngi nii na bi ne koy laaj bala ma ko dekkal bala ma ko yëkkati waa ji na laaj leen ko na bi ko yaa fulaanatu jigéen la yaay diw mun ko labbayka wa saabayka yaa rasulallah wuyu naa la yow sayyidina Muhammad na bi ko hal tuhibbu an tarji'i ndax bëgg ngaa dellu si fii ci àddina mu ne ko laa yaa rasulallahi mukk mukk armeel bi yëpp ngi dégg kàddu xale bi ci biir bàmmeel bi mu ne ko fii ma ne yàllaa ngi may teral fii ma ne yaatal nañu sama bàmmeel fii ma ne moo ma dàqal àddina ak li ci biir lépp ci sa daaja yow rasulullahi waa ji xool ko ne ko yow la ashhadu an laa ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu annaka rasulullahi yonentu boobu nag fii yaa ngi toog ci jotaayam yaa gën a tedd ku dul yow fii yaa ngi déglu ay njàngaleem yaa gën ku yow fii ki yaa yëg ci sa xol yaa gën a sedd yaa tedd ku dul yow yaa ëpp yiw ku dul yow mbokk yi nañu wëlbati ko waat tuub gaaw bala ñoo dee bisi ngi ñëw malakul mawti dana ñëw du tëb miir du tëb fenêtre soxlawul neexal leen la soxla mooy ruu gi dina ko yóbbu daraja boo mën a am da dem mbokk yi nañu wëlbati ko waat delluwaat jël suñu xol yi jox ko rasulullah sëriñ Bamba waxoon na ni sabata anna rabbana lam yuridi mislan lahu fa misluhu wala yuridi sëriñ Bamba wax na ni sax na yàlla ci boppam dootul nammate bind ku mel ni rasulullah jeex na sa maam Cheikh Sidil Hadji Malick ne waa haada ma haada lakin laa yumaathalu min tawaaduin wa xusuuci alqalbi wa ratami mu ni Seydina Muhammad la mu làq moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbir mu màgg loo xam ne làq na ko kenn du tolloog yonent bi di déem ak yam ak moom ci toroxlu xol ak toroxlu moom Seydina Muhammad moo gën a bëgg yàlla ñëpp yonent boobu nag lañu yàlla royloo nañ ko jël ci jikkoom ju rafet ja di jéggalee ko jëllale nañ ko roy ci jikkoom ju rafet ja di dox ci mbaax di liggéey fonk suñu réew bëgg suñu réew waaye bëgg ñëpp laabal suñu xol li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa moroom ñi am alal di dimbali ñi amul néew ju doole ji ñi am alal di leen dimbali borom alal yi milliardaires yi dem leen ci ci jàkkee jumaa yi milliardaires yi dimbali leen seen mbokk dem leen ci hôpitaux yi jënd ordonnance yi génne leen seen xaalis bi ngeen denc te te dimbali ti nit ñi da ngeen koy denc ay milliards ngeen dee ñu ciy fo denc leen ci tuuti rek li ci des lépp dimbali doomu aadama dimbali leen nit ñi milliards junni million nga denc ko ci banque bi toog di ko xool noonu di ko xool daw say mbokk changé numéro téléphone dimbali leen doomu aadama yi mbaa mbaa yëg nga ni bis boo fi jugee say mbokk lay jël gas ba mu xóot suul la wëlbati toog di la wàcceel kaamil fexeel ba sa dëj bu la kenn jéppi fexeel ba sa dëj la ñuy la ñuy wax ci yow mu doon mu dëgg dimbal leen nit ñi te yàlla rek tax dimbal leen seen i mbokk alxalqu kulluhum iyaalullahi rasulaay nee na mbindeef yëpp njabootu yàlla la ñu te ki ci yàlla gën a bëgg mooy ki amal nit ñi njëriñ am xaalis amaloo kenn njëriñ yàlla nga dee mbokki mi noonu siira ngoog yal na yàlla may fekk aljuma ji ñëw incha allahu taala wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala هدينا إلى الهدى إلى الهدى